waaw dañuy am bégte tey euh, organiser li ñuy wax ay consultation médicale gratuite jëmale ko ci mag ñi nga xamante ni ñuy wax personne troisième âge ñi am lu ëpp juróom-benn fukki at donc loolu lu am solo la parce que ñu ngi gërëm waa fondation ñoom ñoo ñu jàppale ba lii mën a nekk donc parce que loolu également priorité xam ne ne euh, mag ñi itam euh, bëri na jàngoro yoo xamante ne ñu ngi koy doxaale donc bés yi day tax ñu seet leen bu baax jox leen garab yi ci war. ba si yemul ci seet rek ku ñu seet war la defal rajo wala yeneen tam dinañ ko def parce que gis nañu fi ay médecins généralistes ay médecins spécialistes ay échographie cardiaque ay échographie prostate ak électrocardiogramme ak seet suukar ci yaram yëpp ñu ngi koy euh, jagleel mag ñooñu pour saytu seen wërgu yaram. Mhm. maanaam wër ngeen ci saal yi ci maanaam xayma lan ñaata euh, patient lañ war a toll. waaw xaymaaguñu nag euh, liñ gisagum waaye tey ci suba enregistré nañ lu mot ñetti téeméer ak juróom fukk yoo xamante ni ñëw nañu pour ñu jël leen. Mhm. feebaru mag yi ñu gën a nemmeeku. waaw defaguñu statistiques yi waaye xam nañu feebar yu mag yi li ci ëpp solo donc maanaam problème mu lay doon problème mu rein problème mu prostate problème mu xol problème mu bët. donc yooyu yëpp fàggandeku nañ ko diabète ak hypertension artériel problème mu cardiaque donc yooyu fàggandeku nañ ko ba indi nañu ay docteurs yoo xam ne seen xarañ ci loolu la màcc. suivi dina am exactement képp ku nga xamante da nga am feebar boo xamante dafa nesi dafa soxla suivi dinañ la euh, topp euh, toppatoo nu mu waree su fekkente ni dafa soxla ñu boole la ak spécialiste mu lay suivre aussi dinañ ko euh, jéem waaw